voilà yow yaa ngi soog génn sa këyit bi ñu nga si doon toppee euh, li nga xam ni moom mooy euh, manœuvre nature ak compromettre la sécurité publique ak participation à une manifestation non autorisée fan lañ la jàppe ak kañ lañ la jàpp. le le 30 lañ ma jàppee le 30. Mm-hmm. ñëwal tuuti. ñu tëj ma le 9 août. na waaw. tribunal. waaw tribunal de Dakar. waaw dañoo pour dégg kii bi pour audience Ousmane Sonko. mooy bi ñu téye Ousmane Sonko. ci digganteem ak Mame Mbaye Niang. waaw jour bi ñu ko war a atee. waaw lan la jàpp waaw. lan lañ fan ak nan lañ la jàppee. ginnaaw tribunal. Mhm. dañoo dem war a dugg gars yi nangu ñu dugg léegi dem toog ci benn jaaykat ndekki foofu la ñuy toog toog ba si yàgg police yi ñëw ramassé ñun ñëpp. yóbbu ban police yi ñëw yóbbu. police Rebeuss. léegi bi ngeen demee lu fa xew. ah après ñu laaj ñu lan moo leen indi fii ñu wax lépp ñu leen aara ba suba fii ba suba ñu bàyyi leen ngeen dem ñu xëyee ngeen il faut il faut il ñu yóbbu ñu d' accord bi nga ñëwee ci Rebeuss lan nga fi jot a jànkonteel nan nga dundee sa séjour carcéral ak ñaata temps nga fi def. def naa 6 mois 6 mois maa ngi dewal naa 6 mois presque 7 mois. mais combat bi ci biir ci biir ci biir sax am da gën a am doole ci biir. nan la combat bi amee doole ci biir. chaque jour chaque jour bu ñu génnee coup. waaw patriote dañuy regroupé. fu nekk def ay conférence ñu wax ak naka la ñu war a def naka la ñu stratégie bu ñu war a def ba gis nguur bi. ci biir kaso bi ci biir kaso bi. voilà sama bracelet baa ngi nii. d' accord génne wale sa bracelet yi. Hmm. d' accord léegi waxtaan yi pour lan la woon comme par exemple waxtaan yi nga xam ne ñu ko doon waxtaan ci biti. muy comme waxtaanu politique moom ngeen def ci biir. waaw wax waxtaanu politique rek. waaw waaw naka la ñuy def pour ñu pour ñu jot mhm. bi Sénégal mën na sànni. teg mhm. ko ci raay d' accord léegi projet bi noo ko gisee da ngeen di continuer di wéy di ko dëggal. te te te am doole sax. xam mhm. nga da da ngay jàpp am na ñoo xamante ne bokk bokkuñu woon ci Pastef. mais à travers léegi mu ci biir Pastef. yow ba tey yaa ci biir. maa ngi ci biir. d' dee rek moom ma fi génne. d'accord lan ngay wax sa yeneen mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci génn guñu. nañu nañu nañu continuer combat bi jeex na ba pare. bu soobee yàlla ñëppay génn ci biir. voilà ñu leen di fàttali rek ba tey euh, libération yi mi ngi wéy fii nga xam ne nag moom mooy 100 euh, diggante démb ak léegi ci kaso bu Rebeuss bi bàyyi nañu fi ñu bare bari ñoom tam rek euh, ku ci nekk di wax sa xalaat waaye tam di dellu siwaat ci li nga xam ne moom mooy sa séjour carcéral ñu taxaw ci ak kenn ñu ngi lay nuyu sëñ bi déjà di la masawu nga fàttali ñu tuuti. maa ngi tudd Boubacar Badiane. Mhm. de Parcelles Assainies. Mhm. Euh, ñu tëjee ma kaso le 9 août 2023. Euh, ñu tëjee ma le 9 août 2023 euh, à Rebeuss chambre numéro 2. voilà lan la lan la doon toppee. bon en fait d'abord maa ngi sant yàlla bu maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm vraiment sama ak sénégalais yi nga xamante ne vraiment kenn ku nekk ba nga sawaar si suñu détention bi euh, di wax ne mbir ma téye daal ñaar mbir la bi nga xamante ne euh, man mii si sama wàllu bopp vraiment euh, su ma ko waxee ni dina la est-ce que la. benn bi dañ ma ne gis nañu da ngaa bëri groupe whatsapp si sa numéro téléphone. mooy premier point bi ñu ma ma ne leen man Pastef laa bokk. du ma ko nuyee. donc beneen bi mun ñu ne ma. bu ñu ñëwee perquisition sama kër fekk nañ foofu ñaari gilet gilet bi nga xamante ne effigie sagam man agent sagam la beneen gilet bi effigie mairie la euh, ma bokk ci ñi gañee ci mairie Parcelles Assainies beneen bi ñu ne ma dañ fa fekk kagul bi nga xamante ne euh, moom lañ ngay demee manifestation ak euh, benn gant gant bi maa ngi teen moom laay sol su ma demee liggéey loolu lañ fekk foofu ci loolu lañ ma jàppee ma ne c'est moom matériel bi nga xamante ne moom laay liggéey te aw ma ci lenn li nga xamante ne dinaa ko regretter te ñëpp xamee nañ ma ci lii donc man si ñaar lañ ma toppee le fait que gis nañ groupe WhatsApp parce que fi bëri nañ sama portable ak kagul bu ñu fekk sama sàmm ak euh, gilet bu sagam ak gilet bu mairie bi ak gant coupé loolu lañ ma jàppee. est-ce que takk der yi jéem nañ def ay investigation comme yow wax nga ne gardien nga te ñu bari xam nañ ci sécurité ngay liggéey ngir mën a dem ci maire bi war a dem ci sagam pour xool est-ce que yow élément nga buy liggéey foofu comme ni nga ko waxee. Euh, par rapport tamit euh, question bi euh, keroog bu ñu ma jàppee dam leen ne il faut appeler à la sagam d'accord ngeen xool yeen jour bu ngeen xamante ne am ngeen yaakaar ni man dem naa manifester. Euh, ñu woote au niveau de mon poste ñooñu naan la en tout cas daal Boubacar Badiane tey si suba moom moo wàcc te semaine bi yëpp moom moo liggéey. d'accord léegi bu fekkoon yéen am ngeen jour bi nga xamante ne leer na leen nii da ngeen ko gis si manifestation. wax leen ñun ñun ñu vérifier suñu kayit bi. mais ñu ne ñooñu seen yoon nekk si ñoom seen liggéey la def may la amul benn problème euh, noonu tamit laa bàyyi mbir mi euh, ma delloo ko si suñu borom. ma xam ne yàlla nii la dogalee. Mhm. ala kulli haal il ma dem kaso rek. Euh, kaso bi wax dëgg yàlla euh, maa ngi gërëm encore Macky Sall. ci nan. ndax Macky def na li nga xamante ne te keroog bu muy sangoo suuf du ko fàtte nday jàpp ay gor ay doomu jàmbur ñi nga xamante ne defuñu dara am ñi nga xamante ne manifestation kese lañu jàpp bi nga xamante ne article quatre-vingt moo ko reconnaître. bul jooy bul jooy dëgëral sa xol bul jooy bul jooy. et émotionnel. émission euh, la peut-être xamaguñu soxna si ñëw di ko dalal waaye luñ ci mënti wax jàpp leen ne responsable la Pastef ca Parcelles Assainies yëkkati kàddu euh, suñu juumulee soxnaam la. Mhm, soxnaam la euh, mooy li nga xam ne moom la ñu gis ngóone jamono gi madame mhm. moo ñëw noonu akolaat ko ngi jooy émotion la mën nañ ko comprendre soxna si ñu ngi lay massawu voilà ñu ngi lay ñu ngi lay massawu bu fekkee ne bëggoo feeñ nga may ko tuuti rek ñu la koy ñaan wala nga wax ci benn kàddu kaay ah, dañu pulee jigéen parce que xam nañu euh, euh, euh, kaso dafa metti te bu ñu gisee soxna ñu bari dañu abandonné seen ay jëkkër ci moment yu metti yi nanga ko dundee salaamaaleykum maa ngi bi ma amee famille bu ma soutenir surtout ku may liggéeyal moo ku may liggéeyal benn instant bu ma demee ba nar a xaaj moo may damay soutenir sama famille mention spéciale te tey jii bu may amee sama jëkkër ba yàlla def tolof tolof bu ma wanee ginnaaw def ma bokk nan nga dundee moment ne dañuy siiwaat dina merci beaucoup merci beaucoup ñu un peu ci bi. nga xamante ne moom moo reconnaître consul. la la la loi de manifester. soo amee lu la métti euh, nga wàcc dem manifester ñooñu yëpp jàpp leen indi leen fii euh, ci loolu euh, su ma waxee maa ngi gërëm Macky Sall parce que tey dafa permettre pour que tey ñun ñu wax ne kaso bi li fa nekk tey umpuñu ni kaso di doxalee tamit umpuñu ñi suñu magistrat yi ak juge yi di doxalee umpuñu nguur gi bi nguur bi fi nekk nu muy doxalee par rapport ak la personne de Ousmane Sonko ñun xam nañ ko tamit. moo tax côté boobu laa waxee maa ngi gërëm Macky Sall. je que tey jour la bi nga xamante ne ñu wax lépp mais dinañ ko tenk ci kaddu ni vraiment suñu euh, temps carcéral bu ñu def noonu métti na trop bu ma nee métti na ñun moom wax dëgg la sant nañu yàlla mais njaboot bi nga bàyyi si biti ak ñeneen nu ñuy déggee kaso nu mu mel. ñooñu la ñu gën a yërëm parce que ñooñu xamuñu exactement kaso Ndoumé mais ñun ñu fa nekk. am na lu ñu madame Badiane. madame Badiane ñu ngi nuyu sama internet ñëpp ñu ngi kontaan si yow ah Saint-Valentin na tey borom kër yu génn ñu gis nga ñëw accolade ko lan nga yëg. xanaa bànneex bànneex ndax weer yi metti woon na ci man torop mu guddi lëndëm mais terewul ma jàmm ba yàlla def tey jàmm xam nga tey jii bu nekkoon dafa metti rek ma du ma ñemee taxaw fii mais alhamdulilah laay wax sant yàlla bu di gërëm tamit waa parti parce que vraiment euh, depuis bu ñu duggee si kaso ba tey bàyyi ñu benn yoon côté lekk bi côté bu nekk parti baa ngi jàpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak képp ki nga xamante ne jàpp na si ak képp ki nga xamante ne wax na si tamit kaddu bu rafet bi nga xamante ne moo mun a boole Sénégal vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm. nga gëj a gis sa soxna tey ñu ngi koy waxee ne bi ngay wax moom nga ko gis booba ak tey nan nga ko dundee ak tey bi nga ko gisee nan nga ko dundee aussi. Euh, vraiment tey moom euh, sentiment bi ma am tey vraiment euh, kontaan naa mais des naa sama njaboot laa bëgg a gis. Mhm. xëy na moom laa gis mais suma doom yi. da nga bàyyi naa njaboot. yu sew sew sew sew surtout kenn ki janvier bi la am deux ans. Mhm. janvier bi la am deux ans kooku euh, jigéen la sama nawle la kooku kooku mooy sama kooku mooy bajaan nag. Mhm. waaw kooku moom sama famille la. kooku surtout kooku laay kooku rek laa laay toog di xalaat euh, di wax ne xam naa peut tey moom euh, bu soobee yàlla xam naa yàlla dina ko def tamit ma mën a récupérer vraiment sama doom yi ñu mun a toog waxtaan en famille xamal leen vraiment du tuuti ci àdduna euh, ñoom tamit buñ ma gisee yaakaar naa dinañ xaw a kontaan tamit parce que gëj nañ ma dañ maa gëj a gis euh, dernier jour bu ñu may gis dama man seulement monté woon gar wàcc si suba ñu ñëw fekk ma foofu jàpp ma heureusement fekk na sama doom yi sañ kenn ku nekk dem na si liggéey mhm. mais bu fekkoon loolu sama kanam doom yi lañ moo waroon a jàpp jàppewuñu ma sax si manifestation. boobu pour ma ma si manifestation. kër lañ ma fekk jàpp ma kër sama kër lañ ma fekk jàpp ma. parce que dañu am peut-être yàqin ne monsieur le maire Jamil Sané. mii nga xamante ne man maa ci ci wàllu sécurité de la mairie. am na li nga xamante ne lien bi nga xamante ne man ak moom war nañ ko mën a bokk te yàlla xam na ne. amul lenn li nga xamante ne lu ñaaw li nga xamante ne am na sama diggante ak maire Jami Sané Jami Sané tamit muy journaliste ñu képp ku yëngu ci wàllu journalisme am na ne Jami Sané du nitu média depuis bu jëlee be maire yi ba tey am na ñi nga xam ne bëgg nañu xam kan mooy Jami Sané mais ñu ko xam donc mënoo nekk ak Jami Sané di am ay pressentiment yi nga xamante ne eh, dina ñaaw surtout li nga xamante ne day yàq Sénégal Sénégal ñun bu ñu ko defarul duñ ko yàq mais bu dee dañuy étiqueter nit ñi étiqueté nit ñi nan ñii ñoo yàq kat dëkk bi. ba pare encore chasse à la sorcière. soxna si am na ñi nga xam te ne dañu leen jàpp noo sant Badiane noo sant Diatta. ñu ngi fii sant rek kon loolu da nga koy dëggal. dama koy dëggal. Mhm. ñu ngi fii li ma xam la moo tax ma ne la. Macky Sall ñu ngi koy gërëm ba pare dinañu wax lépp nu mu demee. Mhm. noo tudd noo sant Badiane ñu jàpp la noo tudd sant Sagna ñu jàpp. Mhm. mu ngi fii am na ay nit ñu xam la. vraiment loolu Sénégal warul doxee noonu. di wane ni que xeet bii. warul mun a nekk président xeet bi mu war a nekk président. loolu koy maa ngi koy la lancer message à tu le acteurs politiques. réew mi ñun ñoo ko moom. bu population bi àndee ni Balante moo war a nekk président. na ñëpp nangu ni Balante moo war a nekk présent mais di jéem a stigmatiser benn religion wala benn euh, ethnie. vraiment vraiment vraiment ñu ngi lay sant merci beaucoup allez merci euh, mu nekkoon ni nga ko waxee ku xam ne tey jii muy rek euh, ñi nga xam ah, bi ñu ngi lay nuyu fàttali ñu tur bi ah, maa ngi leen euh, fay mhm. naka nga tudd di leen wax maa ngi tudd foo de Diédhiou d'accord maa ngi dëkk parcelle unité 26 waaw ci ñi ñuy bàyyi nga bokk am déet. waaw voilà fan nañ la jàppee. Euh, suñu ma bàyyi laa bokk. ñu ngi may jàpp unité 26. a lañ la jàpp sama buntu kër le le 31 mai. Mhm. astafurlah le le 22 mai lañ ma jàppee. Mhm. ñu jébal ma yóbbu ma kaso le 31 mai. bi la doon toppee. waaw ñu ngi may toppee ñu ne damay recruter ay nit pour ñu dem toj mhm. ay kër autorité. yan anam lañ la jàppee yan anam balaa ngay egg ci ci man la fekk nan fekkee ak lan nga doon def. sama buntu kër lañ ma fekk damaa añ juste wàcc mu am ku ñëw avant kooku di ñëw d'abord mu am na ku ma woo téléphone benn femme woo ma téléphone mu ne ma ah, dama dëgg ñu ne euh, da ngay jaay alimentation ma ne waaw damay jaay alimentation mu ne ma dama ubbi restaurant. mais Dakar laaw ubbi restaurant dama bëgg nga may jaay may togg may jaayaat ma ne ko ah, ah, ne waaw ma ne ba nga ñëw yàggul benn borom cax-cax ñëw ñëw taxaw si samay tànk mu ne ma yow yaay diw ma ne ko waaw mu ne ma am na ku la woo man ne waaw am na ku ma woo mu ne ma euh, juboo ngeen ma ne ko non non jubooguñ parce que gisoogu ma ko mm-hmm. il faut mu ñëw mu taxaw ñu jaaxaarloo mu wax ma ma soog a xam ni kii lii la bëgg kii mooy lii kii mooy kii waaw ma ne ko d'accord léegi mu dem ba ci même pas vingt minutes même pas dix minutes boobu waa ji bu muy dem ma koy xool dafa dem ba avant muy jàdd mu taxaw di may xool sama yaram may ma ni kii xëy na am na lu muy wóor mhm. eh, man musuma xalaat ni dina dinañu ma fekk foofu di may jàpp parce musuma dox li nga xam ne lu neexul yàlla d'abord avant may dox lu neexul doomu adama yàlla mosuma dox ci lu neexul yàlla ba ba gendarmerie ñi may léegi waa ji dafa turne mu taxaw xool ma sama xel ñaaw mais ba tey waxuma dara mais ma ne dina leer si kanam raw lu bët yàggul même pas dix minutes benn kat taxaw sama yoon ñu ne ma yow diw ma ne la waaw ñu ne ma kaay wuy ma ne kan laay woo kan wuy ñu ne ma commande ko dew ma fen parce que man wóoruma ni gendarme ay ay gendarme lañu ma ne dew ma fen mu ne ma kaay wuy commandant ma ko sa waaj xoolal dew ma fen bu leen yàq si liggéey jàmbur yi quoi da ngeen fekk nit di liggéey ngeen yàq mu ne ma kaay wuy mu woon mu génne carte bi woon ma boobu laa ne ah, mu ngi bëgg a damaa noonu du ma dem tant que aw ma convocation. Mhm. parce que Sénégal convocation lu yoon bu lay woo da lay convocation. loolu man loolu laa xamoon. Mhm. loolu laa doon dundee si loolu laa daan gis mais ni ñëw di si samay tànk kaay wuy damaa noonu du ma dem mais bu ma wonee carton laa jógu dem ma dem ñu téye ma foofu dama dama ko ne lu ma gën a nakari du yóbbu bi. a lu ma gën a nakari mooy nu ñu ma nangulee bàyyi ma tëj sama magasin. tey ñoom xamuñu man nu ma amee sama alal magasin bi noonu laa ko bàyyee ma dem parce que ñun fii boo añee kenn ku ne boo añee ba pare ñëpp ay dugg si kër yi di di di toog di toog ay di ah, xëy na ñii di naan ataaya mbedd bi day wéet mais ma ne ko euh, monsieur le gendarme may ma ma tëj magasin bi ñu ne magasin bi doo ko tëj ma ne ko pourquoi ñu ne ma doo ko tëj ma ne mais instant yi mbedd bi dafa wéet kenn nekku fi ñu ne magasin bi doo ko tëj man aha man d' accord bugguma xëccoo ñoom si lenn. parce que respect laa leen jox. ma bàyyi noonu magasin bi dem sama njaboot di may wóor ma ñu fekk ma brigade de guddi loolu métti na. Mhm. est ce que lii est ce que réew bu bu wootee développement Sénégal bu wootee émergent est que nii lay doxee xamoon nit ki ni mu amee alalam nga ñëw fekk ko fu mu fu muy liggéey nga foofu yóbbu. léegi bi nga demee gendarmerie brigade de recherche lan moo xew ci sa enquête ak ñoom ndax wala la ay preuve am na ay photo wala ay vidéo yoo xam ne tegal nañ woonuñ ma dara dama leen laaj yéen lii li ngeen may laaj nii foo leen ko jëlee ñu ne eh, dañu leen ko dañu leen yónni ma ne lu ñu leen yónni ñu ne dañu leen yónni pour ñu jàpp ma ma ne aha ñun ma ne leen waaw ma ne mais man def ma dara man xaw ma benn kër autorité Moussa Sy bu nekkoon foofu mer sa passé la ay temps musuma xam këram soxtuma bay jaabate ay kër jàmbur man xaw ma kër benn autorité bay yebal ay nit bay recruter ay nit pour dem toj kër ah <coughs> mais loolu kese la ñu après ñu indi mag benn maître benn avocat parce que man musuma lijjanti affaire avocat parce que man dama sama adduna moom dama kaa dama kaa jubal moo tax aw ma benn avocat ñu ni ma benn waa ji un certain euh, avocat ñu ne ko maître Babacar Ndiaye mhm. ñu ne kii mooy sa avocat ma ne waaw avocat ma ne man jëluma avocat parce que lu may doy avocat ñu ne ma kii mooy sa avocat ne aha ñu ne ma waaw ko ñu waxtaan waxtaan waxtaan après moom mu jëm ñibbi ñu bàyyi ma foofu le 31 mai la ñu ma jébal fii tribunal bi nga ñëw tribunal ndax léegi ma ñëw instruction wala lan moo xew ci biir tribunal ma dem bu ñu ma yóbbalee bu ma joxee tribunal euh, juge bi euh, mu ne ma yow diw ma ne ko waaw mu laaj ma fu ma dëkk ma waxal fu ma dëkk mu ne ma euh, lu ñu la toppee yaa ko def ma ne ko lu ñu ma toppee mu ne ma da ngay recruter ay nit pour toj ay kër jàmbur kër ay kër autorité ma ne ko monsieur le juge lu ñu ma wax amul lu ñu la wax amul parce bu fekkente ne lu am la dañu may tegal vidéo bi ak yooyu parce que damay dëggee nit ñi euh, ñi nga xam ne jàpp nañu leen ñu ngi leen woon ay vidéo wala sàcc day nit bu ñu koy jàpp dañu koy jàpp si lu leer mais man lu ñu may toppee recrutement ay nit. xaalis boobu su ma ko amoon damay damay chargé sama magasin ma toog liggéey ñun bu ñu liggéeyal euh, président Ousmane Sonko du nii lañu koy liggéeyee ñun bu ñu koy liggéeyal dañu koy liggéeyal si le terrain. dimbale nit ñi ñu dem inscrire inscrire euh, si la fiche électorale ñu mun am carte d'identité bu bés bu jotee ñu dem sandi ku ñu bëgg a sandi carte nit tamit boo ko doo ko dimbale ba pare nga forcé ko ku muy waxte loolu amul man man kiiwuma noonu. noo dundee si biir kaso bi. vraiment kaso bi moom vraiment maa ngi sant ñu fa nekk maa ngi leen sant maa ngi leen sant di ñaan aussi képp kuy patriote foo munta nekk. ngir yàlla ngir yàlla dama lay ñaan si jëmm rasulullah foo mënta nekk nga wonew yar ak tegin surtout pour nga mun a bokk si société foo mënta def loolu moom vraiment man dinaa ko dox dama ne su ma génnee si kaso bi dinaa ko dox parce que gis naa ñu bëri ñi nga xam ne vraiment man nu ñu nu ñu dundee moom aw na maa de mais nag xam naa ne moom des fois peut kaso bi moo moo leen jàpp. su kaso bi day jàppaate day day dafa métti. ñaata at nga am métti man am 42 ans. même 42 ans 42 sa njaboot sa soxna ñi nga bàyyi woon na lañu dundee sa incarcération. moom nee naa leen nañu muñ ne naa nañu muñ bu bés bu jo bu bu naree jeex rek day jeex waaw ñi ñu ma bàyyi si prison bi vraiment maa ngi leen sant euh, garde yi fa nekk vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm fan nga mos a gis. Euh, di nga nekk si benn société des fois directeur bi pour nga gis ko problème mais directeur bi ku ma bàyyi fii nii wax dëgg yàlla moom jàppewuñu ko may dëkk. d'accord bu may génn nii si kaso bi sax joxante nañu loxo si buntu bi ñu bi may ñëw. loolu moo ne vraiment daf ñu téye téye bu rafet man de man man maa koy sant. d'accord damaa dem bay nekk ko employé sax di liggéey nag baax bu ñu baax firi bu ñu firi ñoom adjoint bi sax dafe moom ak directeur laa joxante loxo fii nii bu may génn si buntu bu doon keneen sax ah bu dee yeneen directeur yi yàlla ñu maa ngi sant aussi garde yi garde yi ñoom en général ñoom ñu bàyyi ma ci kenn am xam naa ne instant moom ñu ngi may déglu mais maa ngi leen sant di leen gërëm kontaan naa si yéen trop da ngay si seen projet bi nga xam ne da ngeen ko tàmbali wala da ngay bàyyi nii instant yi ci fu ne nii moom euh, sama place aw moon kenn ku ma fay bàyyi mais yaakaar naa ne ku ma fa ku fa nekk noonu su ma demee xool ni liggéeyam moom mën na mu ngi koy léegi damay gën a dugg si terrain bi nag mais du question pour yàq de. ñun Sonko yàqul fenn. ñun dañu ko bëgg a jàppale si du jour élection yi sinon sa avant élection yi lu terrain bi laaj dañ ko koy jox ba mu jeex tak mais du violence ay yooyu toj ay yooyu déedéet ay saj déedéet déedéet. loolu moom loolu moom doxalu réew mi. waaw loolu moom képp ku ciy nekk bu nekk. Mm-hmm. ay yàq bu yeboo bu yeboo nga xam ni euh, man mii sax su ma la fekkee ngay yàq. du ma ko nangu. merci waaw dama la teg def jongo ma nii ci ah. nag mu lay manqué bi dafa rafet fii mais mbaa mbaa fàtte woo yoon bi ndax ndax détenu yu bari dañuy fàtte yoon bi. bu non non mënu ma fàtte yoon bi. ndeysaan ah, yoon macha allah ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ay ci gis nga leen ñu nekk couple boo xamante ne macha allah gis ngeen couple bi bëggeel nga xamante ne rek ñoom ñaar ay ñu koy wane mu nekk lu am solo jëkkër ji génn. anam macha allah gis ngeen ko